jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel improtive TV yi mbokk yi euh, sëriñ Ahma Lo la ñu seet si wala seq ak moom waxtaanu yaatu massage body body wala massage simple wala xeetu massage bu mu mënti doon coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr ndaw sa moomoon salon ba gis ngeen convocation bu ñu ko jox danañ ci dugg ànd ci ay leeral mbokk yi diggante Bombardier ak Eumeu Sène mbir mi dafa war a leer 1 wala 2-0 mbokk yi nag am na ñu naan 2-0 dafa xew kii toog. lu mu wax yàlla def ko lu muy faral di révélé di ko leeral da ngeen di gis ne loole day am muy si axmaloo di kàngam di borom xam-xam bu yàlla dimbali. coow li ci état bi danañ ci dugg ànd ci ay leeral mais laata loolu dañuy bàyyi sëriñ bi mu nuyoog askan wi ñu soo a xoos dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi ax Axma ñoo ngi lay ziar. lillahi taala waxdahu wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajmahin wa man mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat leen ziyaara dégg ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax bisimilah. Euh, sëñ Axma tey bëgg naa ñu seq waxtaan wu yaatoo ndax nga ne ma lii ñuul ci soow mi jot na mu leer lii ñuul ci soow mi jot nañu seppi ko bëgg naa xam nag liy ñuul mais balaa boobu ax ma euh, sa loxo yi ngay jël di am loo ci tari di ko dugal ci sa nopp bi mu nekk benn xeetu seet bu garaaw nekk seet bu doy waar boo xamante ni bokk na ci li jaaxal Sénégalais ñu ne ma su ma ñëwee naa leeral askan wi loolu ay jinne la wala rawaan na wala xuddaam la wala seet la goo xamante ni nit da koy jàng wala seet gu ñu doon la ndax ku ne xam na ne ci askanu ndaam nga bokk te bu ñu nee ndaam xam-xam ndaam ñoo daan jërëjëf suñu dégg ñu ngi nuyuwaat bu baax a baax askan woo nga wax muy askan wu sell wu yàlla teddal ci ay maam ba ci ay maami maamaat kon ñu ngi nuyu waa ndaam yëpp ahlu ndaam yëpp fu ndaam nekk rek ak mboolem ko sant la foo nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara barke ba ndaam loolu moom li la ci waxoon rek laa la waxaat maanaam duhut xam bu ñuy jàng duhut tamit lu ñu doon ak yenkiwal suñu borom moo koy xool ku mu neex mu jagle la ko ci say barke maam maam loo xam say maama ko yoroon la ba mu egsi ci yow donte sax sa maam yooyu ñu leen doon bari nañ lool ci ay sët waaye yow ko yàlla defal mooy li ma mujjee wax sama euh, waxtaan mujj bi mujjee def man wa anna fadla bi yadillaahi yuxtihi man yasaa wallahu sul fadlil azim suñ borom mooy xool ngëneel ko koo soob mu def ko ci yow waaw suñu jëmm ji nag loolu la yàlla def moo waral xeeti xam-xam yi ñu fiy waxtaanee ak xeeti maanaam tawat yi ñu fiy waxtaanee rek bëgg naa ay tawat yoo xam yu bari ñu waxtaanee ko lu ko mel ne cancer maanaam weer wii ñu nekk wala at mi ñu nekk dana yóbbul ñu bari te day rax cancer ak asma ak jabet yooyu xeeti feebar dañ koy faj fajul gaaw képp koo xam gañeegul a cancer na nga ñëw ñu fajal ko te ci alxuraan lañ koy faj ndax alxuraan yàlla waxoon na ne dañ leen ko wàccal muy yërmande ci yéen wàcce ko itam muy saafar ci yéen wa nunazzilu mina alxuraani maa huwa shifaa wa rahma kon alxuraan ñun suñ ko fi teggee di dem ci leneen rek dañu xoolaat suñu bopp suñu mag ñi kenn daaw ci dem hôpital suñu mag ñi kenn daaw ci dem dispensaire bi ñu ko xamee yàggut bi mu amee yàggut suñu yaay yi sax bu ñu daan am doom ci kër yi leen daan amee doom te dara daaw leen woon jot kon la ko waral mooy suñu masaan ëmb wala ñu toll diggante daanañ am lu ñu leen daan takkal nga xam ne ñu imbi ci jàmm mooy dañuy am doom ci jàmm mag ñi tamit am na ñu daan nandaloo ak di ko fajoo daawoo dégg feebar yii ay diabète ak cancer rek yooyu boo xoolee année année quatre-vingt yi lañ commencé di di yëg yooyu feebar mm-hmm. mooy bi tubaab yi commencé bari ci médecine bi ñu commencé di sàggane yenn xeeti mag ñi mm-hmm. ak alxuraan mm-hmm. moo tax cancer déglu leen moom lu may wax bu baax a baax a baax a baax at mii dana ci rey nit ñu baree baree ba te ay ndaw ñoo ci ëpp. te dafay rax mbiri rab ba pare ñu ñu jiñ ko loola di ko faje loola te fekk du doon loola. ba mu rey borom. muy muy muy jabet bi ñuy wax. muy asma yii ñuy wax a xeetu maladie yi lu ci du sida daal. Mm-hmm. mën nañ na koo faj. te ci alxuraan nit lañ koy faj. Mm-hmm. kon nañ xam ne cancer dafa bari lu lu muy rey ren jii. tey jamono bu ngeen xoolee ci semaines yi ñu génn ak weer yi fi faatu ci ay ndaw yu amul 40 kenn xamul nu tool toll te ñu ëpp feebar yooyu la la rab yi dàqatoo rab yi nag waxoon naa leen ne leen dañoo bari ci réew mi te rab yu bon yooyu tamit bari ci bari fi ak i tamit wàllu cat bari tamit lu muy rey lool te nit ñu bëree bari itam bàyyiwuñ xel cat li mën a def ci nit. ndax doomu aadama toujours ñu ngi exposé seen bopp. te kenn ci ñoom amu ci gàllaaj kenn ci ñoom sanguwu ci ko jox sang bu ko sangoo juróom-ñaari fan. bu ko sangoo juróomi fan pare ci. digg am la. cat ku mu jàpp. su fekkee ne maanaam xam nga cat dafa am cat yoo xam mën na nekk sa yaram. du la def dara. am cat yoo xam loolu la ñuy wax musibamu cat maanaam ayu cat. dafa bokkut ak cat kese. moo tax bu sangatu mënut a ñàkk. takk galaaj mënut a ñàkk wala boo dul takk galaaj nga fonk ko sangatu ak saraxe mm-hmm. soo ko defee suñ borom mën na laa musal ci yooyu mm-hmm. waaye nañ xam ne daal tawat yu bëree nga rey ndaw ñi fi mu nekk nii mm-hmm. tawat yooyu da ko koo làqatoo waaye leen rey dëgg-dëgg du loolu sëñ bi dégg naa ko cat jàpp saafara sax bu ñu la ko joxee ne la lim bi juróom-ñaari fan la wala ñeenti fan doo ko matal dégg naa loolu ay mandarga yu feeñ doo ko matal wala sangat ga faaw dana am lu ci dugg su ko defee damay wax tamit ne toujours bu la rab jàppee ak bu la cat jàppee ak bu ñu liggéeyee dañoo nuroo fi ni bari na koo xam ne nii mi ngi wut dara. Hmm. di lijjanti kayit. wala muy mu bëgg tukki wala mu mu feebar. Hmm. fu ne mu dem fa di ñiisaan di jeex. Hmm. wala fu mu tollu du du am xol bu neex. lu mu dugg da cay génnaat lu mu tàmbali mën naa neex ci commencement bi day jékki-jékki yàquwaat. nekk rek mu dugg ci te la ko war a du dara lu cat la amee. wala mu amee rab bu bon bu ko yàqal parce que rab tam danaa ne dafa am ñetti façon yu muy duggee nit. dafa am ñoo xam ne nii dañu amee ay rab ci seen i maam lañ ko jëlee. am ñoo xam dañoo amee rab ñi ngi ko jëlee ci seen i maanaam dafa leen dugg rek ci mbedd mi nii. Mm-hmm. maanaam dañuy dox heure ñu war a dox wala dara rab dugg leen. Mm-hmm. am ñeneen ñoo xam ne tamit maanaam li ñuy wax saddum jinne moo leen dugg mooy ñi nga gis ñu dof. wala ñu leen di téye ci mbedd yi. Mm-hmm. wala ñu leen di téye am benn waay bu ma ko keroog moom waa suñu daal damay dégg ngeen wax ci affaire rab mais li tax tubaab yi amuñu rab. man nag tubaab yi xanaa xamuñu ëpp ah. yi fi ne nii <clears throat> ñi fa dëkk te amee yooyu xam nga tubaab yi dañoo gën a organiser loolu li ma ciy leeralal mooy nit ñi nga xam ne ñooy weddi ñaan ak di weddi ay rabak ay dofak ay nangam sangam. te yow yaa ngi ko bàyyi ci réew dem gisoo ko ci réewum jàmbur tax nga ne loolu est-ce que amul est li dal li tax du dal tubaab bi. Hmm. te tubaab la gën a sonal. tubaab bi ñoo ñu ëpp ay dof fuuf ñoo ñu ëpp ay rab fuuf. Hmm. parce que li tax mooy ñoom dañoo organiser seen dëkk. fexe nañ ba am ay naa nit ñi tuddee ay dof duñ leen bàyyi ñu tilim duñ leen bàyyi ñu dox ci benn parce que seen image réew lañu lañu lañu sàmm. dañ leen dañ leen wutal uh, ay kër yoo xam ne ni fa leen di denc. wut nit ay nit ñoo xam état bi moo leen di fay mu leen di sang di leen toppatoo duñ nekk di def yenn yi wala ñu taxaw ci di solti mais buñ leen bàyyoon comme ñu fii ñu mel ni waa fii. su ngeen yéen yow muy dem ni pare di nga gis ñu ñuy tuddee ay colossar mhm. dañu nekk ci mbedd yi nangam nangam mais loolu voilà di fanaan ci mbedd yeeg nangam sàngam ak yooyu mhm. kon tubaab yi yeneen dëkk yi bu fekkee doo ko gis mhm. loolu lu mel noonu ko gis waa boo am na ba am 60 ans te mu am jëkkër am dafa am jëkkër yi jinne gis ah. gis tubaab boo xam moom kese moo dëkk këram du dëkk kenn du dem fenn moom kese ak yeneen yoo xam yéen dëkk ci réew yi bu ngeen ko xoolee di ngeen ko gis te rab moo leen ko def. ci tubaab yoo xam ne ñu jékki rey nit rabo leen poussé ñu fetal nit mu dee ñu dem ci kaso bi. ak suspendre yi ñu def seen bopp. def nit. ni koy defee suñu waa dëkk yi dafa am gis koo xam ne rab ko tax mu xaru. Mhm. gis koo xam am na 40 ans mënut a am soxna te pourtant am na am na am na moyen soxna mais mënut a am soxna. gis ñeneen ñoo xam ay jigéen lañ am nañ lu ëpp 40 ans mun ñu am borom kër ku ñëw wax dem ku ñëw wax dem boole des fois duñ bëgg wax ak kenn dañu bëgg a réserver rek ñoom toog ki ñoom kese. Mm-hmm. des nga gis leen ñu dugg ci dara ba ñëpp ne danañ dem mu yàquwaat. loolu nag seet gi ñuy seet moo ñu koy xamal. Mm-hmm. ñu xam kii rab moo ko jàpp wala cet moo ko jàpp mbiram yi li tax mu dëgër lan la. Mm-hmm. li tax mënoo am ay kayit lan la parce que déposé nga bu yàgg wala kenn woowu la. pourtant nit ne la in la nga fay ko sa xaalis mu mu dem déposé nañu bari ñu génn ba yow sax loolu tax nga wóolu ko yow. te yow mënoo génn le. day am ñu ne diw mi de moo moo moo tax diw gars yëpp yi am kayit ci moom lañ jaare mhm. yow nga fay ko sa xaalis ba pare mënoo jot say kayit wala yow sa bopp nga dem déposer sa bopp kenn mun laa woo mhm. yooyu yëpp ñun dañ cee gaaw mhm. te liñ ci gaawee leen rek mooy xam cause bi lan la xam saraxam lan la bu laajee sangatu ñu defal ko ay sangat xam sangatam lii la kon xam-xam dafa am mystique lu am la ñaan yàlla lu am la bu jamono yàqoo yàqoo na ba siise siise yi ak turé turé yi jaxate jaxate yi bari ci écran yi di wax nag su du noonu ba ngeen jàpp ne xam-xam amut waaye lu am la. ñun ñi ñu ngi ci jëflanteel kenn xam. ñooñu say kal lañ. ah samay kal lañ. xam suñu dong lañ. Ah. <laughs> si si ak jaxati jaxate ak Touré Touré ñooñu noonu xam la boo xam ne ñun ñin ci ñin fi jaar ak i nit loolu satisfaire wu kenn xamu nu mu toll. Hmm. parce que dama faral wax ne ñun biñ dalee dugg ci internet bi ak léegi ami luñ kenn dara dama koy wax chaque jour ku ma yoree dara wala nga dugal ma sa xaalis te woo ma jotoo ma wala yónneewu ma dara wutal sa mbokk mu nekk Sénégal hmm. mu dem dagg pelante indil ma ko ñu dem ma fay la sa xaalis xanaa loolu yomb na kon amelu ma kenn dara chaque jour dama koy wax ñi ma jëflante ñëpp am nañ tawféex te yónnee naa seen i mbir bañ jot ci tey ñu ngi may seetaan hmm. ndax eh, fii moom lu fi dugg ñëpp ngi koy seetaan kon amelu ma kenn dara hmm. kenn ku nekk la ma diglante woon ak yow jëflante ko yow gis nga ko la ma la waxoon war tamit jot nga ci na ma la ko jëflante boo ko jëfee la ma la xoon gis nga kon maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax kon su ma amee fitu audience toog fii di ko wax parce que dafa wax naa ko ay deux mois ci ginnaaw wala un mois kon su ma ko waxaatulee day mel ne kon dama caa génn te la ma wax ba la waaw boo waxuma ko ci turu benn sëriñ ci sama turu bi laa ko wax parce que man la engagé kon nañ xam ne lii ñu nekk ak askan wi ñu bokk muy ndaam ak njub ak sell ak mbaax ak jaamu yàlla lañ leen xamee woon. wax naa ne sëñ Tuubaa mi nga xam moom la yaakaar. daf ñoo fonkoon. naw la woon ñu. am it ñu tegoon. waa ndaam yi jébbalu woon ci moom yëpp itam nekkul woon ne sax dafa am lu mu leen daan ñii bind leen santoon. ñii jàngale leen santoon. ñenn ñi itam mu def leen ay ay ay ay ay ay ay wasila maam ñu nekk ci wetam. kom mm. ne Cheikh Mor Habsa Lo diirug dund mos a jóg ci wetu sëñ Tuubaa. ku mel ne Cheikh Cyril Lo Sànn mm-hmm. ah ku mel ne sëñ sëñ sëñ Abdou Naam Abdou Rahman ak ñeneen bu mu ko doon lim ëpp nañ fukk ñoo xam sëñ bi dafa am fu mu leen tegoon am lu leen joxoon ñu ko koy doxalal kon askan wu kenn du ci bokk du nekk nit koo xam ne da ngay nekk ko yaafus wala nga nekk koo xam ne da ngay wër di waye di wala nga def nag su du noonu mm-hmm. tey wax dëgg yàlla dimbali nit ñi ñu tax a jóg waaye lu li nga xam ne mooy teraange àddina nga xam ne moom la ñuy moom la nit di am di ko sant yàlla man koo jaamoo yàlla suñu borom defal nañu ko kon loolu lañ ciy sant yàlla baax waaye dimbali askan wi te xam ne jafe-jafe yi bari na tawat yi bari na hmm. te doomu aadama garanti wut doomu aadama dundam garanti wut hmm. doomu aadama mën naan sax bu dee ci lay gën garanti bu dee dund ndax ku xës ba dee hmm. lu ñu wax jébbal nañ ko boromam sécurité ci yàlla fekk baax ku deewante ñi nit bu deewoon fii léegi dañuy ub ko ci néeg bàyyi ko fa moom kese kon kooku rek am sécurité mais kii dund amul sécurité bët yaa ngi sa ci sa yaram wi làmmiñ yaa ngi ci sa yaram wi te loolu rek mucc ci rek daa doy sëkk fexe ba mucc ci bii ak bii rek doy na sëkk kaaraange kon bu fekkee ne muccagoo ci loolu rek na nga jóg sa bopp bu baax a baax baax li la li la ci mën a tax mucc nag yaw yaay jóg di ñaan alal damay faral di wax ne fajul de gàcce rek lay faj yoral xaalis bu dul jeex denc ko te yaa ngi ami soxla wala nga ami problème wala yaa ngi feebar ba pare xaalis boobu du la dara denc gi ko denc da ngay faatu rek nit jël ko séddoo ko ci saasa mm-hmm. yow nga ci bàmmeel yi kon bu la jaral mukk ngay denc benn dërëm te fekk ne yaa ngi am tawat wala yaa ngi am soxla. alal li rek la jariñ. mosoo gis ku xiif ba yor 10 000 di ko lekk. leen dong la mën a jël 10 000 francs yi wut ci lu mu lekk lañ def mu denc ko. Mm-hmm. kon nañ xam ne bu nit ñi di nay ci seen bopp waaye tamit rab yi ngeen àndal tamit des fois danay faral di dox seen diggante ak yi leen amal njariñ maanaam ni des fois rab dina ànd rab. Mm-hmm. rab boobu noonu. gis ne suñu axma mi muy wax suñu axma mi li muy wax dëgg la mën na maa faj ak yëpp mu jël sama numéro yëpp denc de. mais du ma woo. rab yee koy téye des fois wala cat jàpp ko dëgg dëgg dëgg dëgg. ba du man a jóg ci boppam. fi ne am na ñoo xam ba mu sama numéro yow mii di ma seetaan na yor nga sama bu yàgg ba tey vidéo bu dugg seetaan yaa ngi li may wax nii yu ci bari mi ngi ci yow waaye nangu woo maa woo li tax. jéemal yow si sa bopp nga xeex ak sa seytaan si nekk si yow mooy rab bi nga àndal wala boog li nekk ci yow nga jéem a moom pour jéem a ñëw ci man ma xetti li waxuma ko ngir dara nag ngir dimbali rek waaye jàpp naa li ma la wax sànq aw mu benn intérêt man di wax lu dëgg wala ma di ko def waaye dama xam ne maanaam dimbali nit ñi ci jaamu yàlla bokk. beneen bi toppin mooy mbiri mbiri maanaam ñiy wax bari nañ lool waaye yonent bi saasam dafa xam ne saa yu ngeen bàyyee ñi xamut di wax. yéen ñi xam ne leen di bindal bàkkaar loolu bokk na ci li ñuy indi ci internet ñuy wax waaye amu waaw kon su ko defee xam-xam. xam la rek lay jëriñ. xam-xam boo ko amee denc ko toog moom sa biir ne jëriñu la dara. kan loolu moo li ci nekk waaw. Euh, sëñ Axma euh, gis nañ Moustapha Cissé Lo am benn photo bu ñu génnee nii ba Sénégal yëpp di ko partagé am na sax ñenn ñu naan euh, dafa mel ne lu tawat mais am na audio tamit bu génn mu mel ne lu ci ardu kilifa diine ak xalifa général yi di leen wax ne am na lu war a xew ci dëkk bi di delluwaat nit ñi ci jaamu yàlla di delluwaat nit ñi ci li nga xamante ni moom mooy njub. boo xoolee politiciens yi lu ci bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri am na côté boo xamante ni dañ leen ciy sikk moom fi mu waxee mooy dafa mel ne ku ardu politiciens yi ak yenn ci li nga xamante ni mooy journaliste ngir euh, réew mi jàmm gane si fi. Euh, réew mi jàmm war na fee ñëw ba tax na nit ñi ne woon coowal Adji Sarr ak Sonko nañu ko tege ne le mais dafa mel ne coow la judduwaat na ndax ka nga xamante ni moom moom suite boote ba euh, convoqué nañ ko dafa war a wuy. Hmm, xam naa daal <coughs> ñu njëkkee sax ci mooy surface yi la di ko nuyu baax. suñu bàyyi la suñu mag la suñu nijaay la suñu lépp la. ak fami yëpp ndax ay doomam yëpp samay xarit lañ ñu ci bari ci ñoom damay jaxasoo ak ñoom. Mm. Eh, di en de loolu yëpp moom ku baax la. ku sell la itam ku mën a jaamu yàlla ma xam nga xam nga politique des fois day day day day nëbbu ndaanaan. Mm. mais ku mën a jaamu yàlla ku sell te bëgg lu baax tey def lu baax. ku set tamit sell te yooyu yu bari da ko daan waxal boppam nee na man bokkuma ci politiciens yi tukki di jël hôtel di ànd ak jigéen ak nangam sangam. buy tukki soxnaam la yóbbaale kon ku sell la xam bu fu baax a baax kon lu mu wax rek da koo gisal boppam parce que mag la nag doon tut gone te lim traversé ci àdduna bari na. te borom kurus la tamit kon kooku bu wéetee wax na nangam gis na ko rek nan gëm loolu nee naa la ndaam. ku ci bokk. boo góorgóorlu tuuti. doo xam dara. Mm-hmm. loolu moom yàllaa ko defal askanu ndaam. Mm-hmm. kon Cissé moom lu mu wax rek dëgg la. mu des nag mbirum Sonko Adji Sarr mi loolu de xam naa ne. daal daal daal daal daal nañ ci nañ nañ ci def ñaan bu baax a baax a baax surtout Sonko nañ ñaan bu baax baax a baax. man naa tege ne mbir yi ni mu tege ne noonu la yombee man na ko bañ a yombee de. ca gis. waaw na ñaan ci boppam bu baax lu man te xool nu mu def ba ba aar boppam ni mu tege ne ni la yombee wala noonu la jàpp ne noonu la yombee du ko yombee de. ci boppam bu baax a baax wallaahi wal xuraan man du ma fen amul ma benn njariñ Sonko musuma ko gis musuma wotee loxo musuma ko pël sama yoon newu ci. yaa ngi dégg. waaye na xam ne mbir moomu nam jàppee na la yombe du yombe noonu te la ñu lal ak di ko ak di ko nos moom itam na jóg bu baax. loolu laa xam waaw. sëñ Axma tey laaj ci mbirum këyit papier euh, nit ko am jafe-jafe euh, papier moo xam séjour wala green card wala sax ku nekk fii bëgg a voyager. waaw loolu loolu yaakaar naa wax naa ko si biir li ma passé sànq. loolu yemuñu ci ku yàlla bind. parce que li koy waral mooy leen mooy cat cat lii cat li nga xam ne moo waral mënoo ko am yow. maanaam bu fekkee dafa jafe lii tax li tax yow ko am. Hmm. loolu la ñu fexe xam suñu seet googu dégg naa la comme mën doon soo ma wooyee ma jàngee li ma jàng sama sama sama ba jàng ko ba ko sama baaraam yi. Hmm. tudd sa tur yow laaj yooyu la daañu ma wax ne man nangamatee mënu am. bu dee kay cat moo ko téye ba mënu ko am. wala dañ ko liggéey ba mënu ko am wala rab moo ko jàpp mënu wala dafa yaramama diis rek. maa mu bari ay jafe-jafe ndax am ñoo xam ne ni ñu bëgg mu jafe am ñoo xam ne nii lu ñu am ci mbett la lañu ñëwee waaye li ñuy xaar ak di ko yaakaar bala ñu ci jot dañuy sonn loolu nag bu ñu xamee problème yi ko waral buñ koy dindi maam dégguñu sepp rek lay doon soo koy déposé balaa yàgg di nga ci dégg ay nouvelle loolu moom ñi ñu jëflanteel xam nañ ko mm-hmm. gis nga àdduna lu mun ta nekk amut loo xamul nu muy def ba mu nekk kay moo am waaye lu mun ta nekk amut mm-hmm. lépp impossible na parce que bu bu fekkoon mun ta am du kenn du ko tudd parce que rek maanaam lu war a mën a nekk la lu ñu tudd rek lu ñu xas ba tudd ko lu mën a nekk la kon ku amati moo xam da ngaa yàgg àll moo xam da dem bëgg ñëw moo xam lu mën a doon tamit jafe moo xam fii réew sax nga nekk bëgg a tukki nañ déggante nga xool su ma la seetalee diggalay sarax na defal lii bu fekkee lu war a ñaan lañ mën na lii nañ ci ñaan parce que lii lii lañ ci def suñ ko defee incha allah balaa yàgg di nga ci am ay nouvelle Cheikh ma ku bëgg alal foo mën a jaar ak dégg nga de. gàllaaj gàlloo waaye nag yooyu yëpp nit ñi dañ ko sàggan malheureusement. gis nga sangatu nekk looy sangu juróom-ñaari fan daal ci pare non pare naa ci pare naa ci da ngay soo xam ne boo leen joxe sang sax dañu naan te gis nga nit bët bu set war ngaa sangu lu mu gàtt gàtt ñett yoon li gën a tuur ci li nga war a sangu ñett yoon la war a doon. boo xëyee war ngaa dugg ci ndabal cat. Mm-hmm. ndax démb bi li nga yendoo suba ba ngoon jot nit ñaa ngi lay xool ñi ngi wax ci yow. Mm-hmm. kon war ngaa mën a sangoo sangatu cat. benn bu bu sa yaram fendee nga sangoo sangatoog ubbi kaay loolu nit ki war ngaa yow euh, cinq heures demi julli boo paree sangu cat bu fendee nga sangu ubbi bu fendee nga sangoo bari dem xëy liggéey ku mos di nga mos ku mosu di nga mos ku mucc di nga mucc ku mucc di nga mucc boo ñibbi si waatee sa kër boo xëyee defaat noonu waaye yow nit ko xam yow yow ne nga si ñu jox la sangatu juróom-ñaari fan boo ca paree pare nga ci ak noonu dama man kay lu ba sonn man kay ñu lu ñu mhm. a sangatu ndax doomu adama li la la maanaam lu ñuy oto boo bëggee picc bëgg yoon da ngay taaj ndox taaj pepp mu doog a ñëw mhm. kon wërsëg yi tamit daa am nañ koy ñoddee mhm. di sangut sangat yi nag bokkuñu dafa am sangat yu mag yoo xam wërsëg wu mag a ko tax a jóg. Mm. maanaam buy fàq lu mag lay fàq indi. Mm. am sangat yu noonu la yi nag yi nekk ci ay biteel ak ay bidon moom. Mm. loolu laaw rek la mën indi dépend. ki ngay lu muy def. kay yooyu day dox ci loolu wàllu wërsëg lay ubbeeku maanaam sirru dunyaa la loolu. maanaam am wàllu dunyaa mooy sangat goo xam ne nii dafay dox ci wàllum alal kenn du ko sangoo. te yii gën a néew ni moom doo ko moom mooy kër goo dëkk. ak daamar goo war. soxna yu te loolu ci la am wàllu duniyaa tàmbale nga doog a am njaboot. sangar gi ñuy joxe nag looloo ko tax a jóg. ku ko sangoo faaw da ngay am loolu. billaahi wal quraan asim parce que man am naa ko jëfandikoo ko am naa ko kon man. kon su lu ma am kay wax dëgg yàlla bu ma nee bu ma nee gëmloo nit ne war naa am war nañ koo nii am naa ko moo tax. a waat mooy bu kàttanu suñu borom gi jàllee barke alxuraan rek la ak sangar sangar nag dafa am sangar yoo xam ne nii dafa am ay garab yu muy àndal. am yoo xam ne ànd ay yeneen sunguf am yoo xam ne ànd ak parfum yu bokkut am sangat yoo xam ne lu ci nekk ak la muy àndal waaye sangat gu mag daal kenn du ko sangoo ba ren di déwén te gisoo sa bopp te sangat damay wax njëriñ li mu gën a rek mooy sooy sangu da ngay wér ah kuy sangu di sangoo saafara di ko naan wallaahi docteur du la tiim macha allah ma sabala fa man musuma dem ci docteur naa ko ma sama yaram ah. te barke mag ñi rek ah. njàmbaar du sama dara waaye barke mag ñi yegg na ci sama baay de daana ma jox may naan daana ma jox may sangu te itam jox na ma lu may sangu ak lu may naan. Mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla de man na docteur ba mu mujjee tiim yaakaar naa boobu maa ngi nandalu mooy ba muy dugg néegu góor. ci la ma docteur mujjee tiim. te benn yéen boobu la ma mës a tiim. loolu ak wér la. dégg loolu sangatu moo koy maye ak wut gàllaaj fexe ak kaaru aaro. wallaahi wal xuraan asim lii ma leen di wax moom laay dund te mooy nekk ci man man du ma wax lu ma gëmut du ma wax lu ma nekku ci man parce que kenn du ma fen loo te gis ma lu ma a fen waaw ndax yi jaral fenn nit ñëpp pour nga pour nga tedd suñu borom defal na ma maa ci sant yàlla kon loolu nañ xam ne lu am la leneen li ci des rek mooy wàllum garab yi ndoxu siti yi tamit nañ koy faj wax naa ko ba taay siti buñ ko buñ ko xeeb ci ci ma ci feebar yi la de ci ci feebar yi la te damay faral di wax dina jàpp ni des fois ba mu yaakaar sax dañ koo njibar parce que sites yi mën dafa bari. kon nañ ci góor bu baax yooyu am naa ay vidéo yu ma ci waxtaan yu bari bu seetaanee yi bu tàppee yeneen yi dañu ko gis te gis dañu gis waxtaan naa ci ñi nga xam ne ñoo amee nañu ma woo. ñu woo nañu ma woo ma dimbali leen. sëñ bi euh, ñu tàggatoo ci Bombardier ak euh, ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène euh, nga ne nañ la woo. nañ ma woo ma leen ndax dafa bari loo xam ne nii mhm. néew kattan da koy joxe na ñoo xam ne rab moo leen tax a néew kattan mhm. maanaam seen awra dina jóg dina dëgër waaye a man naa koo faj wallaay mën naa koo faj mhm. naa ne wax ñu ngi a fen rek yow yaay lii ngi la daal ba pare kon madame Lo daal moom bég na mag ñi liñ fi bàyyi woon bi jógu fi ne mag ñi liñ fi bàyyi woon góor daan dem ba am 80 ans di mat góor soo sa sa sa awra jógee mu dëgër dijj diis waaye garab yi ngay naan nit day naan lu di faju waaye bu fekkoon ni li may wax lu dëgg wala ku ma xam nga ko seetaan sama soxna xam na moom rek moo ma xam kon yooyu maanaam bu fekkoon amul wala garab yooyu noonu aw ma ko wala di ko faj kon ñi may seetaan te xam ma dañ ne waaye kii daal lay wax rek. ndax man nii doon naa ko ñaanal te loolu la waaye wàllum kàttan moom yëpp mu ma ci ku yàlla bind. Bombardier ak Eumeu Sène euh, làmb jooju xam naa ci la ñuy tàggatoo nan nga gisee làmb ji 2-0 wala 1-1 2-0 nag am na ñu ko fi xewal waaw <laughs> ah, doy na waar. am leen daal Eumeu Sène daal combat bi moom na ci góorgóorlu ñaan la bu baax a baax a baax a baax. góor ci góorgóorlu ñaan la bu baax a baax a baax a baax. su ci ñaan la de yàlla mën na ko dimbali mu doon mu doon am niil. waaye bu ci ñaanul bàyyi boppam génnewu sarax. moom la ma ci gis daal kii wut te man nag man am mooy sama mbër xam nga fi ni nga gis ne am naa mbër nag. waaw seen man fi ni nga gis nag ma xam bi may xale xam nañ ko. barke Sëñ Tuubaa man sa moom dong laa am ci mbër. Mm. sama xarit bi sax Cheikh Bara Ndiaye xam nga bi ñi ñoom ñun ay mbokk lañ. bi ñuy gën a nekk xale ñoo daan ànd nekk ak yëpp. moom Papa ñoom papa ak ëmm euh, mi ay de waaw yàgg nañ de ñooñu mbëri yàgg nañ man boobu ay xale lañ dañu leen seet dañu xam si xam ñu boo nekkee doomi mag da ngay béjaaw nii nii mais man ci année yi mujj yi laa judd waaye man amusé laa ma safaral ba ma xàmmee ba léegi léegi mbëri ñooñu mag fopp ay paa lañ de dañuy dem nii xam nga booy entraîné di kii di lekk de topp sa bopp ay mais ay paa lañ de parce que dégg naa 2002 2003 bëgg ndongo la di way ndongo la bi mu faaroo léegi léegi mu def ay at hmm. waaye nag nag jot na nag ngeen dem jaamu yàlla de ay ñoom ba ma jee gars yi yëpp nag jot na ngeen dem ci si jaale yi rek de foofu mi bari na de fa mu yàgg na waaye daal amoon na ñaanu ci làmb ji bu baax a baax. Mhm. waaw na ci ñaanu bu baax. waaw parce que làmb day loo xam ne des fois ni koy foogee ak ni mu demee mën naa bañ a bokk. Mhm. te lu tuuti mën na laa xañ ndam. waaw waaye man moom sama sama mbër wax dëgg yàlla bu ma doon a sax moom laa ñaan waaye nag làmb nag ma ci faral di ñaan. waaw waaw am na seen ci làmb moom ak moom ak ñaan naa ci loolu am na ko may seetaan koo xam moom Balla Gaye la faraloon ba ma ko waxee ne ko Balla Gaye mësee na koy daan dana man sëñ bi dama laa rus man xam nga yàlla def loolu li nga gis ne bëgg ko carrière bu gudd la am kon Paul Maurice kooku bu ma saan di bu dee tous rek man saa yi man doyal laa ma ji ne tous rek man ma kii am ma seen dem même chose man daal ñooñu naan bëgg naa leen ci làmb kon in uridu ila islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ayco dégg ngeen sëriñ Axma Lo Ndam li ma waxtaanee mu nekk waxtaan woo xamante ni lépp njariñ la nekk waxtaan woo xamante ni lépp ngëneel la dégg ngeen li mu wax ci làmbi Eumeu Sène ak euh, Bombardier ji Eumeu euh, yaakaar naa sëñ bu soññ na la wax na la li nga xamante ni moom mooy mbir mi jugal ci sa bopp te xam ne ñaan yàlla mën na lépp dégg ngeen wax ji ñu wax ci wàllum rab waaye dégg ngeen mbirum tawat li ci sëñ Axma waxtaanee am na solo lool numéro sëriñ bi moo affiché noonu ci suuf ecran bi yor na whatsapp képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci daraja yi Muhammad Rasulullah